téléspectateurs yu Ira TV di la ziar euh, tey nag ñu ñëw fii ci Mewane euh, ñu buggoon rek nga wax ñu kan mooy Serigne Modou Dia ñi nga xamante ne ñu ngi suivre te bëggoon la xam rek nga présenté wu. asalaamaaleykum sëñ Aliou min sharri seytaani rajiim euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Abdou suñu xarit suñu soppe ñu ngi lay ziar bu baax yàgg waa yëpp ah Serigne Modou nag kan mooy Serigne Modou wax ci sa bopp day xaw a jafe. waaye mën nañu def rek benn taaliq bu gàtt boo xam ne dañ tax ñu xam euh, ki ñu waxal sëriñ moodu doomu sëriñ Cheikh Jalla bu sëriñ Modou Janjar bu sëriñ Mor Janjar sëriñ Mor Janjar nag ku ne xam na ay euh, ci àddina bi fépp sëriñ Modou mooy taawam sama waajur sëriñ Cheikh mooy taawam man may taawam yàlla dogal tamit suñu waajur bu jigéen soxna Ami Dia moom sëriñ Moussa mu sëriñ Fallou Mbacké moom tam sëriñ Mor Jaaku jur moom man mooy taaw sëriñ Moussa moom tam man maay taawam. ñu nekk fii ci Mewane nag. kër gi nga xam ne sëriñ Fallou Mbacke moo ko joxoon sëñ Mor Dia. ko kër googu ku aajoom na tafaju du fi dugg. Uhuh. tey kër googee fa lañ toog nii ñu toogee fii jërëjëf waaye alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf. jërëjëf sëñ bi euh, di lay jaajëfal bu baax ñu nekk nag tey fii ci Meewaan euh, ñuy waajal li nga xam ne mooy vingt quatrième édition euh, bu joxe ndogu ñu bëggoon rek nga ñëwaat ci li nga xamante ne mooy taarixu joxe ndogu fii ci Meewaan. waaw alhamdulilah si Abdou ñu ngi ziare bu baax tey sant ñun yàlla dafa dogal sëriñ bi muy sëñ Mor Dia sëñ Tuubaa ko waxoon ni ko nekk sëñ Cheikh te ñooy ci man mhm. moo tax ñu doon ay murit di julli di woor nat asaka fas yéene màkka waaye wëlbatiku nag doon ay bàyyi fal encore loolu ñun la ko yàlla defal ci yoon sëñ moo gi di joxe ay ndogu sëñ moo di joxe ay ndogu sëriñ Cheikh di joxe ay ndogu mhm. waaye ndogu yi ñu togg nag nga xam ne ci sunu fii la ko yàlla jaarale mhm. benn bés 99 euh, lañ ko tàmbali woon ci kanamu Serigne Saliou Mbacké sëñ bi ñaanal ma ci jox ma ci ndigal mhm. boobu ba tey at mu ne ñu ngi koy ñu ngi koy def fii ci Mewane nga tàmbali ko fii ci Mewane euh, jëmale ko foofu ca Touba ci jamonoy Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla taaf ci barkeem mhm. euh, muy lu am solo ñu gis ne ren aussi maanaam budget bi gis nañ ne xaw na yokk ndax mhm. tamit bi nga dooree ba tey tey le vingtième jour ñu gis ne maanaam xayma bi daal buñ ko xoolee ci global bi naka la war a sañ sëñ sëñ Modou. waaw alhamdulilah budget global bi mën su la wax temps la def ci ndog yi na wax dëgg yàlla waaye nag bis bu yàlla sàkk. taalibe yaa ngi togg fu ne. ba booba tey saa ngoone musaa Ndiaye ubbi woon euh, euh, sëñ Modou sëñ Modou euh, bëgg liggéey. Mhm. macha allah saa ngoone Diop. ñu nga ak ñi nga xamante ni Abdou Fall Massar par dëkk yi ñooy ànd di togg di ñëw di joxe ñu ñuy séddale suñ ko doon ma daal li gën a néew dem dem mat vingt millions vingt millions waaw loolu nag eh, yàlla tax ñu koy def rek loolu yàlla tax dafa daal naka jël <laughs> ko budget dañuy te yàlla tax waaye xam nañu moom li ñu ci def loolu mu defaak incha allah dëgg la ja waaw loolu nekk na lu am solo ndax it eh, vraiment booy def te yàlla rek tax sax doo calculer li ngay ah, def ci li nga xamante ni mooy jëm ci taalibe yi mm. ah, ñu gis tamit eh, sëñ Modou tey gis nañ nañ ne am am nga ay daara aussi euh, ay daara lu mel ni daara Mbalaxi ak daara Taïba Ndiaye mm-hmm. ñu gis ne aussi foofu am na ay taalibe yu fa nekk lu toll ci deux cent cinquante taalibe mm-hmm. ndax ñooñu dundal leen yomb na sëñ Modou waaw alhamdulilahi rabbil alamin ci question bi ma jox tey ji nii ci daara yi mm-hmm. ndax daara kat ñun dafa bokk ci suñu mission ndax alxuraan xam suñu borom moo ni euh, nu nahnu naa la zikra waaye wa inna lahu la hafizun man yàlla maa wàcc alxuraan waaye maa koy sàmm sàmm ak ñooñu alxuraan wax ni ahlu quraan ahlulaay tan ñu ne dañoo doon alxuraan ndax suñu maam di nga xam te ne moom lañ suñuy waajur moo jàngal maam Maram Mbàkke mii maami Cheikh Xalil ak di maam Alaaji Malik maam sam mi ko jàngal mooy sama maamu baay hmm. dañoo doon alxuraan ay mbind mañ ci kaw sëñ Abdou mbind yu mbind góor googu boo ko gisee comme machine man sama doom bind ay kaamil ci ay loxo xale yi ay ñëpp bëri bind ay kaamil waaye daara yooyu boo demee Taïba Ndiaye du ma cent cinquante nga mbëllëxe mbooloo bare nga fa presque deux cent cinquante ñi ci ak daara yi mhm. waaye kenn du yalwaan kenn du lépp ci kër gi lañ koy eh, xewloo waaye dañu am ay tool di fa bay muy mbëllëxe fa lañuy liggéey liggéey boo xam ne ak eh, li nga xamante nii mooy suñu liggéey mooy pla yi mhm. di ci eh, dundal nag donga yi waaye wax dëgg yàlla ci loolu laa ci lañ nekk jërëjëf euh, sëriñ Modou Dia Mewane euh, sëñ Modou tey bëggoon nañu aussi nga wax ñu euh, histoire maanaam kii bi nga xamante ni ci nga nekk tey bu ñu bëggoon xam kan mooy sëriñ moodu Dia ay waajuram ak maamam ndax man nga ci ñëw rek ci ñi nga xamante ni xañ na xamuñu exactement ok alhamdulilah sëñ Abdou loolu lu yomb waxtaane la ndax ñun boo xoolee sëñ Mor Ndiaye bi ngay dégg moo gisul ñaari maam yëpp sëñ Mor Njaar boobu nag moo demoon euh, moo juddoo Taïba Ndiaye en 1877 bi mu nekkee Taïba Ndiaye def fa ñetti at mbaayam génn àddina ci la dem ci la ko yaayam yóbbu yoof ca nde bu tudd daaw daaw de Sarr Daaru Saan moom nag moo ko yóbbu sëñ naa limaamu ndax sëñ naa limaamu mbokkum sëñ Moodja la sëñ naa limaamu def naa ak sëñ Moodja ñeenti at ci génn kër ah. sëñ naa limaamu xool leer gi mu sori su mu xoog mu sori ci kaw mhm. sëñ naa limaamu ni ki ab cëram mi ngi ci ab penku bi waaye rakkam jigéen ji nga xamante ni moo ñoom ñoo bokk ndeeg baay mhm. ab cëram ngi sama kër gi boobu sëñ naa limaamu alayhi salaatu wasalaam wóoteegul mhm. ñu demee nag ba mu joxee eh, sëñ Moodja eh, Kër Matar eh, jox ko góor gi mu xaalima silla ab jàngu téye soon a bi yëf yi ñëw si naa limaamu nag ay kéemaanam ak mayam bi mu dikkee suñu borom feeñu ko mu wax waxam joojee ni ajiboo daa yàlla yaa masal jinne wal insi inni rasulullah ilaykum loolee ko waxee awalu saaba ka ko njëkk gëm mooy uh, Mamar Binta Samb Mor Binta Samb moomee nag la sëñ sëñ naa limaamu jël uh, soxna Fadja mi bokk moo gën may ko Mor Binta Samb mu di Aliou Samb ak Mambay Samb mm-hmm. Mambay Samb moom moo jur Seyna Samb Seyna Samb moo bii tey actuel maire Yoff ñooñu di njaboot sëñ Mor ja sëñ Mor ja nag bi mu jàngee pare def majaalisam bi muy dem euh, li toppal maam Amari Buubu Ja nga xam ne faju cosaan mi ñu am dañ ko doon ci sunuy maam amari bubu ja boobu moo jóge woon fuuta nga xamante ni moom mu ngi jóge euh, boo xoolee Seyna sa Sadikh mooy maamam bi muy ñëw fii nag jaar na Maroc euh, jaar mu Murtani bi muy dugg ci Sahara bi moom maamam maam amari bubu ja laa la wax am na am naag juróomi téeméeri ulamaaw ay borom xam-xam bu mu dikkee mu tani bi muy imaam xam nga mooy jiitee eh, ci jumaa ji mhm. bu dikkee nag doon chérif bu wax tal bu dikkee ñu ñu ni jaa imaam jóg leen imaam dikk na loolu suñ santu jaw yi foofu la jóge ah. léegi nag mu fët sa bi nag ñëw fuuta eh, bi mu ñëwee fuuta nag ah, meññi fi ay njaboot mhm. ci la am eh, ku tudd na amari bubu ja amari bubu ja ah, moomee nag moo toog di génn bis di war a ñëw fii ñëw ci ku tudd dëcc fi njóogu faal bu ñëwee ki dëcc fi njóogu faal di ko ñaanal tëdd ba guddi suñ borom am lu mu ko wan ni ko dëcc fa njóogu am na soxna soo xam ni ëmb na ëmb juróom-ñaari weer doom jëm ëmb góor la bu juddoo nañu ma ko tuddee ba xale bu juddoo di góor mu ëmari ngoon a sabel mi ngay dégg ah, ba mu demee ne suuf si neex ko nag ku ëmari bu jël ko tuddee ba mu demee suuf si neex ko nag mu ni day ñëw fii pour jaamu sa fi yàlla <laughs> indi juróom-ñaari taaw ak juróom kuy junne mooy Sendeji Mendeji Aynoba Babraji Kenteñe Menteñe Fari Jam Jam. yor benn pitax ak gëléem. gëléem gi nag euh, su su akum xar su jógee taxaw buy war waree ci gëléem moom sëñ bi njaboot gi war. mu sànni pitax mi mu naaw. garab gi pitax mi daal ab dëkk lay doon. bu ndëkkee ñu ay ay ay ay yësal fa gëléem gi. rey xar mi sam fa ak kuy jinde léegi nag buñ bu subaa bu ñu ñibbiwaat bu ñuy demaat feneen bu ñu fob yax yi ëmb ko ci der bi. bu pitax mi naawatee gëlee mu jóg xar mi jóg xar moomu rey nañ ko juróom-ñaari yoon mooy juróom-ñaari nja yi ngay dégg mooy juróom-ñaari dëkk yi mu samp léegi jinne yooyu nag ñoo ñooy topp sëñ moo gi nag sëñ moo ànd jinne yooyu nag dal dem topp sëriñ Touba sëñ Touba jëkku nag boo ko sarafaal ni ko nekkal ci moom tey ñëw xam boobu nag foofu la moo jëlee yor xam-xam boo xam ne ca maam la ko donne mu ay jinne yu am xam-xam ay jinne yi l'islam yu liggéey diin di jàng alxuraan macha allah topp ñu mooy xam-xam bii fa lañ ko jëlee ci wàllu cadre faj baax jërëjëf euh, sëriñ Modou Dia ci loolu nga xamante ni leeral nga ko mm-hmm. euh, suñu mbokku téléspectateurs yi ñu suivre ci IRA TV lu am solo la euh, ñiy gis tamit maanaam ngeen di waajal lu mel ni journée culturel sëriñ moo Mor Dia njar nga xamante ni euh, àdduna war na ko xam bu baax a baax a baax ci njariñ gi nga xamante ni amoon na ko ci réew mi tey ngeen di ko waajal en tant que ay sëtam loolu aussi nag ngeen koy waajalee waajtaay woowu waaw alhamdulilah Abdou ñu ngi ñu lay gërëm di la sant di wax ni euh, Serigne Touba moo ne woon zuriyatan tayyibatan tujaddidu mais nax gi nabil Moustapha tëj temps yow yàlla maa la ñaan ay sët yu baax sët yu barkeel yoo xam ne liggéey bi ma liggéey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ëllëg dina ko yëkkati ci kaw tey jii ku xool Serigne Mountakha muy sëtu Cheikh Khadim nga xam ne fi mu yóbbu yoon yi ci mbaaxaay ci sellaay ci xam-xam yal na fi yàgg lool mbàkke te wér kon kenn ku ne sët bu baax bu ne war ngaa xool sa kër maam nga taxaw fa taxawaay booba xam ne biir suñ Tuubaa boobee sa cër mu ngi ca xoolee sëñ Mooge nag yàlla dogal mu juddoo a Tayba Njaay 1877 dem Yoof ay mbokkam ah, nekk fa mu ñëw ah, samp Njar samp Daaru Ja samp Daara ah, samp Tëngéej dafa bàyyi sëñ Fall samp Kër Njaay Loo def sëñ Ablaay Sëy samp Daaru Ja teg fa sa Useynu Turé moo samp meewaan gi ñu toog ci ndigal sëñ Fallu sëñ Fallu ni ko Kouadium euh, nar fa jooro fu dugg ay dëkki dëkk la sañ dafa ay nit ci réew mi mhm. léegi nag ñu bëgg moom moomee nag ginnaaw nag mm, suñ borom dogal yooyu dëkk yi mu sañ ak feneen ak feneen mhm. ñu ngi am ay bis ñu bëgg ko wutal benn bis bu mag boo xam ne CICES lañ koy defee. Euh, CICES nag saal ba 1000 places la. ñu bëgg nag exposé fu Serigne Mor Dia. nit ñi gën a xam kan mooy Serigne Mor ndax moom boromu may la woon. boromu ak jagle la woon. borom xam-xam ndax jëmm loon joo xam ni. nit ñaa ngi wax ni rek waaye ku rab jàpp bu dikkeem faj. ku seetaan jàpp bu dikkeem faj dof lu mu garaaw garaaw bu dikkee danaan yeewil ah, mu faj nga wér. xam-xam yooyu nag ba tey jii mi ngi fi. Mhm. dara jógi fi ndax ñoom yóbbuñ ko. kon nag moo tax ñu bëgg a wanewaat Serigne Mor Dia. ci liggéeyam ci mbaaxaayam ci wëlliyam ci wilaayam ci kattanam kanam wax fi loo xamante ne nag nit su ko wax ndax ba muy dem barsàq ci weer wii ñu nekk la wootee ni ku ma yaakaar nag ma fekk da njar war man ba ñëpp ñooy war yi mu ni sama turandoo yow laay dénk njaboot gi dinaa tukki tukki bu sori nit bu mesuré ñaata at la soo soog a mesure ñu ne ko fukki ak juróom ñett mu ne dama fa bàyyi gone te nee soo su ma fi jógee ñu daaneel lu lu ma fi sampoon ñu daaneel ko waaye bi billaay doom barke Serigne Fall dinaa garan samay doom ñaar fukki ak juróom ñaar kenn du faatu ñaar fukki juróom ñaar kenn du faatu ku faatu sama ginnaaw ñu ni kii maa ko jur ku ma topp xàccal <laughs> ba mu suñ borom fekk si ko ci loolu moom 32 ans doom du doog génnaat dina kon alhamdulilah ci weer yi doon kon loolu la leen ci tontu ah, alhamdulilah Serigne euh, Modou Dia macha allah kàddu yi am na solo te rafet na aussi euh, ba tax na rek li ñuy wax naan la nga xamante ne rek moo nekkoon ca maam sa te koy jël te ñu gis na tamit ci xam-xam boobu aussi euh, xam naa sénégalais yi war nañ xam kan mooy Serigne Modou Dia Mewane mm-hmm. comme wax ko am na ñoo xamante ne dañuy tàggook seen sago waaye bu ñu duggee meewaan rek daanaka day mel ni lépp day saafarawu xam-xam boobu aussi ba tey dafa mel ni sëñ Modou mi ngi moom waaw alhamdulilah li ñu ñu ngi ndax li sëñ moo ngi yoroon lépp ci loolu laa mujjee sama kàddu lépp ngi fi dara jógu fi ndax tey bërëb bi ñu toogoog rek mhm. euh, mbubbi sëñ tuwaay yam yoroon ngi fi secret yam yoroon ngi fi daa ci jëfandiku lépp ngi fi wala bépp loo xamante ni bi aajo doomu aadama la bu muy jëfandikoo ci dundam euh, la cay war ci xam suñ borom dogal na ba ñu peeg loolu te ku ci dikk boo dikkee ñu jàppale ci loolu. jërëjëf sëñ Modou waaw sa kàddu gu mujj rek ak looy tàggoo suñu bokk téléspectateur yu Ira TV. ngi gërëm waa Ira di sant di leen ñaan euh, suñu chaîne bi yàlla na dund ba nekk télévision nationale adduna bi yëpp di ko setaan te yow mi ko yor ngay suñu xarit di du borom kërub soxna Maguette Niang di sunu kóllëre gu yàgg bu sax goo xam ne ëpp na ñaar fi rek lu lu topp kon loola di kóllëre gu rafet te kóllëre a des ko sàmm ñu ngi ñaan seen diggante yàlla yàlla gën ko dëgëral yàlla yàlla gën ko yàlla yàlla gën la sàmm ñu lay tàggatoo daal ni la ñu ngi ci tey soxna Faram Diop bu Taïba Ndiaye mhm. di sunu soxna daara ja ak xa ga ñu ànd indi sëriñ ndogu fi tey su ngoonee la ñuy jógee tey ba ñëw fii man samedi laay dem mhm. suba la am na kuy ñëw suba Ousmane Diagne mhm. kon programme noonu lay continuer ba ca jour koor gi allah di leen tàggatoo daal kër gi eh, ak dëkk bi ñu nekk nii ak réew mii li fi sëñ moo ko def ci mbaaxaay def ko ci wilaaya tey loolu lépp mu ngi euh, mi ngi fi. Mhm. ku ci soxla boo ñëwee dañ la ci taxaw. dañ la ci jàppale saay ak baatin. jërëjëf alhamdulilah jërëjëf. waaw jërëjëf sëñ Modou Dia Mewane ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax kon mbokk téléspectateur xam naa ci kanam tuuti rek incha allah dinañ ànd ak ñoom ci ndogu li dem jëli ji ko daal di leen koy teg dëkk tël ci télévision bii di Ira TV. sëñ Modou bëgg na wax ci weeru koor yi sax tuuti li ma bëgg a wax. waaw acca simila. waaw kay ñu wax tuuti ci koor gi ndax koor gi day weer xam ne man saama ramadaana iman na waxti saafan xufira lahu ma taqaddama yàlla nee na ku waay weeru koor ni ma la ko digalee ni ma la ko sante ma jéggal la ci ay bàkkaar nga seetlu ci ay bàkkaar kon weeru koor weeru kawe la wax ni wax ni ataakum ramadaana sahrun mubarakan faradallahu azza wa jalla alaykum siyaamuhu tuftaahu fihi wa abwaabu shamaa'ib wa taxlaw minhu wa abwaabu jahim wa taxlu fihi maradatun sayatin lillah fihi laylatul qadri xayri mi alfi shahri man orima xayraha faqat orima allahu xam nga loolu suñ borom nee na dikkeen andi naa leen weeru koor mooy weeru nu barkeel di fàtte ci yéen ni ma ko ni ma ko joxe woon ñeneen fi jiitu man azza wa jalla màgga man buur màgg bi andi naa ko ci yéen mais nag weeru bu dikkee ci lay ubbi sama juróom-ñetti bunti àjjana yépp ci lay tëj bunt sawara yi ci lay tënk seytaane ci laay tëj bunt sawara ci laay tëj saytaane képp koo xamante ni màggal nga ko boo màggalee guddi laylatul qadr da nga am xayru min alfi shahri guddu gi gën weer kon loolu ci biir weer la nekk kon nag weer wi weeru weer la woo xam ni ah, weeru jara profito la weeru jara taxawu la weeru jara jàpp nga xamante ni saa boo ci loo ci jëf bonus lay doon suñu borom ah, defal la ko kon nañ ci gën a góobu ci naafile yi ci julli yi ci ci joxe xéewal yi mm-hmm. ci yaatal leel njaboot gi mm-hmm. ci belli kanam yi te yàlla rek tax ngir ngir ngir dabu ci ngërëmal yàlla loolu ñu kii sax ñuy sant di gërëm ba am jërëjëf sëñ Modou mi ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax a baax sëñ xam naa sax euh, bu fekkoon ne rek mënoon nañoo ñëwaat mm-hmm. euh, ci li nga wax mu nekk lu am solo mu jëm ci wàllu weeru koor ndax weeru koor nekk na weer woo xamante ni comme ni nga ko xamee rek weeru ngëneel la te weer wu suñu borom bi gërëm la. waaw loolu it euh, bëgg nañu. nga wax ñu tey boo ci mënoon a loo ci gën a ñaax jullit yi rek lan nga leen di wax ci weer wi. waaw weer wi euh, euh, li ma ci gën a ñaaxaate mooy ñu gën a góorlu ci jaamu yàlla sellal ko. Mhm. gis nañu jullit yi saabu bu weeru jub see den waaj di góor góorlu waaye bu fukki fan yu jëkki jàllee ñu bay dañ mel na xaw a bàyyee ko ngir te nag boobu lay war a gën a góorgóorlu mhm. ndax weeru yàlla ko xaaj ak ñetti fukk ñetti fukk yi bu ne maam lu mu ci digle mhm. te loolu lu mu ci digle ñun yëpp soxla nañ ko bu jëkk bi def nii mooy yërmande mhm. bu topp mu ñu mooy njëggal bu topp mooy gore ca safara te yaakaar naa ni ab jullit dafa soxla ay yërmande boromam absolument àdduna àllaaxira dafa soxla njëggalu boromam àdduna àllaaxira waaye dafa soxla nag ëllëg mu mën a noppalu tàbbi aljana mooy xatqul mina naar mooy goreel jullit yi ak safara mag ñi dañ daa wax naa yaa sëñ tubaa dafa la ko daan tagg naa yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bil adadi yow yàlla weeru mooy kontaan yi mooy bëggee ñëw na nga xam dañ buy ñëw sax du ma bëgg mu jeex kon ñun tamit nan gën a góorgóorlu gën a laxasaayu ci waxuma la farata yi ñu fonk taxawaayu julli jullit day julli jullit dafa war a góorgóorlu ci julli mhm. ndax booy julli géej la goo xam ne da nga koy sangu juróom yoon par bés géej gooy sangu juróomi muy yoon nag da war di gën a set mhm. kon bu fekkee ne ab julli ba noppi di sangu ba noppi di gën di tilim mhm. kon xam nga ne xoolaatal si julli ndax fas saay woon mun kan la julli dafa lay tàggale ay ñaawteef te te di la jegeel sa borom kon nag ñu gën a googu si julli tey joxeel tey euh, an fiqoo bi maa da tax naa ko di dépenser ci yoonu yàlla ndax jaamu ya ak liggéey yàlla ñu wax. jaamu yàlla mooy ngay julli di woor def lu baax waaye nag ngay liggéey yàlla ci biir jaamu yàlla yi. waaw ndax yàlla ne fa am maamaay fa fay faw naasu. waaye fayn ko su fi ardi. képp ku am amal sama njaboot gi njariñ. sama jaam njariñ. dinaa la bàyyi ci kaw suuf nga ne fi. kon nag ñu gën a góob ci weeru koor wi di jàppale suñuy mbokk talibé yi xam ne ah bis bu ne nga toog lal sa lal mu baax di toog def say ginaar def la nga war def di ndogu xalaatal say xale xel dëkk nga koo xam ne ci koñ bi amul tàddana boobu lekk amul lu mu ndogoo mu jaax loolu moo njabootam gi loolu boo ko mën ab juddee partagé nga tibb yóbbul ko moom mu barkeelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen soo amoon sax xéewal te mënoo koo bokk ak sa njaboot boo koy boo ko yurusi na nga ko def ndànk ngir ko ñu bañ ko dégg di ko yaakaar kon ñi am tam nañ gën a bàyyi xel ñi amul ñu mën a jël jàppalante ci suñu biir ñun ak jullit ñi loolu laa ci sànni jërëjëf sëñ Maodo ñu ngi lay jaajëfal bu baax jërëjëf merci